dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da koy xool léegi ci américains yi leen yàlla defal tabaarakallah eh, bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla huud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabnuuna bi kulli riin ayatan taabathuun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون lu Hud يندي leen yéen de yàlla jox na leen xéewal waaye yéen a ngi déglu leen ma ndax déglu bi ngeen may déglu moo nekk seen jàmmi biir ak seen jàmmi biti ragal leen yàlla mi nga xam ne ama dëkkum bi ma taamaluun bi ma taalamuun yàlla mi nga xam ne moo leen tëbb loo xam ne xam ngeen ko xam bu wér ndax ama dëkkum bi ana amin yàlla moo leen jox alal ju bari wa banina mu jox leen ay doom wa jannatin mu jox leen ay jardin wa uyunin mu jox leen itam ay dexe sew nde mu mel nii xéewal gi yàlla defaloon waa këru Huud ya taxoon na ñu foog ne ñu gën ci nit ñi taxoon na ñu foog ne kenn melul ni ñoom loolu jur ci ñoom ak mbewte ak reewande nangu ñu déglu Huud ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jaww ji moo tax ñu ne soo gisee nit ku am ba pare beew soo dee jël exemple ci boo ko dee waar danga ko waar ci nitu yonent yàlla huut ya waaw am na benn waay boo xam ne fekk ay borom alal ñu toog mu ne leen yéen di tabnuuna ma la taskunuun wa tajmacuuna ma la taakuluun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر موني بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجالي لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال با خي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يا نغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني نوجن كو دكي waaw borom yi fii yi ñu fi miinoon yëpp te ñu génn tey àdduna seen tabax ya ñeneen a fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ci am néeg ba la muy rëy rëy yëpp benn lal nga ci am lal ba la muy rëy rëy yëpp benn barab rek nga okki bi te bu guddi jotee bu ñu fayee làmp bi sa bopp rek ngay daj waaw kon nag booy dajale na nekk lu lew waaw bu lewee itam na ci jaamu yàlla waaw moo tax mu ne kon tëb nuuna yéen a ngi tabax maa laa taskunuuna lu ngeen dul dëkki wa tajmauna yéen a ngi dajale maa laa taakuluuna lu ngeen mënta lekk waaw bis bu ne nga gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at te alal jëdu yëngatu waaw nay na caa génnee dërëm saraxe ko moo tax yàlla ne ku ñu fegal nay ah, jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax tax mu ne wa takaasurtum xatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalante ala rek waye ëppalante bobu ci ngeen di nek ba xëy rek de bett len dugal len bàmmeel waaw yàlla wax na ko ci alquran alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yàlla huut alayhi salam jàkkaarloo kilifa ya nga xamante ni moo di kilifa xeet wi ñu ko yónni di sang ya wante kàddu yi muy nangoo ci ñoom de kàddu yu ñu cible lu tax ndax dangay fen moo ëpp ci li ñu koy wax li ngay wax du dëgg moo ëpp ci li ñu koy wax wusal fii dof nga moo ëpp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa nee na lool lépp noox encaissé na ko ci muñ ab dëgërloo itam ngëm geeg tawxiid gi nekk ci moom yàlla nee na déglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax naan ko yaa huudu ma ji'tana bi na وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون نينا نتم nitam ñi وخنانكو يودال سوخجي أمول بن أرجما تيتم lii ngay wax du tax mukk ñu bàyyi suñu xërëm yi sa wax ji du tax ñu bàyyi suñu xërëm yi te itam duñu la gëm ba mukk yow daal dañu foog ne suñu yàlla yi ngay fontoo ñoo la jàpp ba nga dof demal faju ji yow mii kat war nañ laa ndëppal waaw waaye Huud wax na leen ne leen maa ngi seddaloo yàlla te na ngeen ma seede ne na ma maa ngi leen di seddaloo yéen itam ne man de dañ naa ci bokkaale gi ngeen nekke mu mel nii yonent yàlla huut topp na leen ngir yéene leen rekk jàmmi ngëm ngir itam soril leen ayu bokkaale mu ne leen yéen xërëm yi ngeen topp di ko jaamu soow mi ngeen leen di tuur ci soow bi ngeen leen di tuur bu ca am weñ bu ca weñ ñëwee cof ca benn pepp naaw moom xërëm bi du ko mën a nangu ci moom xërëm boo xam ne weñ ya ko takk mënu leen a dàq la weñ yi di jël ci ñoom mënu koo nanguwaat yéen a leen tane yéen ñi nga xamante nii yéenay ne ngeen yéenay jaamu xërëm yooyu yéen yéen tane seeni sang yéen a tane seen yàlla yi moo tax yàlla nekkoon kon daafa taalib wal sëriñ bi sëriñ bu doyee di taalibe bu doyee di lay am waaye taalibe bu doyee di itam sëriñ bu doyee di lay am kon nag sëriñ bi doyee dina taalibe bi doyee dina sëriñ bi moo di xërëm bi taalibe bi moo di musrik bi nga xamante ni moo sukk ci xërëm bi di ko wax soxlaam moo tax yàlla ni inna alladina tadcuuna min duni illahi lan yaxluqu dubaaban walaw ijtamacuu la wa in yaslubhum aldubaabu cheyan laa yastanqiduunahu laa yastanqiduuhu minhu dacufa altaalibu walmatlub moo tax wa min cajabin annahum yumcinuuna fi alxayi waldalaal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu فترلو جينا خمني يفري فترلو nga xam ne yéefir yi fetteerlu neen ñuy askanale seen yàlla yooyu nga xam ne ay xeer lañu xeer yu tëx duñu dégg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yooyu ñoo loru Huud ba tax mu ñàkk sago ba nekkub dof loolu de ñi ko wax ci cànkute la ñu nekk ñi ko wax itam dañoo topp seytaane bu fetteerlu wante boo gisee ne ñoom mënuñoo dégg dëgg googu amuñu chance su taataan ko ci seeni xol mu def ci ñoom ngëm moo di ne seeni xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru l aynu daw alchamsi min ramadin min ramadin wa yashtaki l famu taama al maai min saqami imam Busayri nee na bët bu wànnentee nee na mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebaree mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi wut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ wu fasaa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu mat sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأول moo xam yaa ngi waar wala waaru looñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni léebu mag ñu njëkk ñi rekk nga yor penc moo toog lépp ko fa kër goo dugg itam lépp ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax boroom kàttan lañu ci yaram borom kàttan lañu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Huud alayhi salaam na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale ak ak mbon continué noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag ci sukkandiku nag moom yonent yàlla huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na huut wax na ne qaala rabbi nsurni bi ma ni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam motax mu ne leen amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dootul yàggati ñu rëccu lii ñu nekkee ci mbon moo tax ñu ne wa kaana hada indaaran aajilan min al alim al qadir بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين أنه مجرد تهديد كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ñu ni ñoom di doon nañu gaawtu naan Huud su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw wante yàlla nee na yàggatul danañ ci teg seen bët danañ ci teg seen bët te bu boobaa itam réccu dana wees te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggal leen loru mbugal moomu moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na gannaaw sigi neen nga dem na ndax yàlla fas yéenaa fas yéene naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di giraat te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Huud moo tax yàlla ne anjaynaahu walladina maahu bi rahmatin minna wa qataana daabira alladina kaddabu bi ayatina wa ma kaanu muminin yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nañu samay tegtali doole te gëmuñu ko wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nañu ma nangu nañ ne man ma yàlla te benen yàlla amul budul man ñu ne itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yàlla nara a wàcce ci ñoom moo dina yàlla xagn na len taw ñetti at ñetti at gisuñu taw waaw waaw kaana أول ما ابتدأهم من العذاب أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خان لين تاو نيتي ات ني نيك سي بيكور سوبا بو جوت نغون بو جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا dana xëy wàcce taw ndeke boobu tabaarkalla yàllaa ngi waajal mbugal mi moo tax ñu ne noonu ñu doon fugloo xiin yi waxtu wu ca lañu waxtaan nag ne li fi sës daal moo di nanu dem ca Kaaba ga ca màkk bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkk ca Kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp a ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk et nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw kii day ñëw jëm gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca Kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax ne ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallaahu xiinu yërmande ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne fa lamma raawhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu hada aaridun mumtiruna bal huwa ma staajaltum bih riixun fiha cadaabun alim tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha fa asbaxuu لا يرى مس إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu ajjuma yarante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ni mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ni tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daaneel château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه borom bi subhanahu wa taala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alage wuute na ndax xeet wii diggi raxaat maa ngi leen alage ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi ñuy tas waaw ngelaw loo xam ni bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw li dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ni ëpp na dooley gayndey njëloor gu xiif gàyyi la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayoo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañoo vidd biir ba dara nekku ci yàlla nee na xeet woowu maa leen alage noonu fa hal tara lahum min baaxiya ndax gisati nga ko des ci ñoom mu mel ni yonent yàlla huut historien yi wax ne ne bi nga xamante ni mbugal mi ñëw na moom yàlla daf ko musal ñii dañu wax ne dafa jóge ci dëkk ba ñii ne déedéet mu nga fa wante yàlla daal moo ko musal moog ñi ko gëmoon moo tax yadaamu ruwaatu anna huudan irtaxala huwa wa man maahu min almuminina bacda annakbati allati xallat bi qawmihi min alkafirin min ardi aad ila xadra wante nee bi mu jógee moom yonent yàlla huut am nañu ne ci sorien yi ne dafa jóge ci seen dëkk boobu jëm ci dëkk bu ñuy wax xadra mawt wax nañ ne foofu la bàmmeelam nekk wax nañ ne itam ñu ngi ko suul ci benn xur wu ñuy wax waadi barhuut ci benn teen bu ñuy wax maanaam ci Wadi Barhut mu ngi nekk ci benn teen boo xamante ni ñu ngi koy wax Biiru Barhut mu ngi nekk Hadramawt wax nañ ne teen boobu ndox mu ñuul moo fa nekk ndox moo xam ne dafa nëb waaw xeeñ lool xet gu naqari nee na am na itam ay yuuxu yoo xam ne danay bawoo ci teen wi yuuxu yoo xam ne neexul ci dégg nee na itam xet ga fay bawoo neexul nit ñi dañu wax ne teen boobu yàlla fay mbugal ruuxu yéeféer yi ak nit ñu bon ni foofu maanaam wax ne ni nit ku bon ku génn àdduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yóbbu ko ci teen boobu teen boobu nag mu ngi tudd diiru barhuut mu ngi nekk ci xadra mawt nee xet ga neexul baat yañ cay dégg neexul ci nopp te ne neeneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen neen ci yàlla huut nag ñu ngi ko suul ci xur woowu waaye ñu ne mu ca biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touristes yoo xam ne wax nañu ne dem nañ ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobule waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Huud ya جروم ناري غدي اك جروم نيتي فان نغلاو لولو نك نغلاو لو بون لا لو مو الاك وا با مملني كون ومن خلال قصه هود عليه السلام نتراءى امامنا العبر والعظات لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده kon mën nañu gise rek ci histoire yonent yàlla Huud ak li muy gàtt gàtt mën nañ ci waaroo jële ci itam ay leçon yoo xam ne mën nañu leeralal yoon wi ba ñu mën a tegu ci yiw mën a tegu itam ci yoonu texe su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Huud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàcce mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw yi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba bo xamanteni dana dana dem ba aduna dana len fàtte ñu dem bëgg na yees yées motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñépp denoon kon tabarakallah mbokk yi modi moo yonent yalla hud alayhi salam iswar bu nga xamne tabaarakallaahu alquran moom moo ko nettali ngi mel nii ñuy def siñ ne waxtu wi jeex na gis nañ ne waxtaane nanu ñaari yonent yu mag mu di sayiduna nuux alayhi salaam ba ñu ci jógee ñu waxtaane beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla huut tey nag ñu bëgg a waxtaane yonent yàlla saalix te sénégalais yi gën ko miin ci saaliw waaw ku tudd saaliw rek sa cosaanu tur dëgg-dëgg moo di saalix mu mel ni yonent yàlla huut moom la yàlla nettali suwaaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddee giiraad te moo di giir gi mu yónni woon huut su ca noppee rek giir muut la ciy teg mu di giir gi mu yónni saalix soo demee ci suuratu najm wala ci suuratul qamar borom bi subhaanahu wa taala gannaaw ba mu nettalee suuratu nuux ba noppi daf ci teg istuwaaru huut mu di giir aad من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال لتنك إسوار جيرعات fa ñu mujj moo di ne yàlla daf leen alak gannaaw ba ñu weddee Huud tey nag alquran fas yéene na net fas yéene naa nettali histoire giir Samuud giir giir la gu nga xam ne dañu amoon kàttan gi giiraat amoon giraat dañu nekkoon ay nit ñu dëgër ci bind nit ñu wér ba pare nag yàlla jox leen ay xéewal yuy baawaan moo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yàlla ne atabnuuna bi kulli riin ayatan taabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaarin mu mel ni kàttan googu ñu amoon ñoom waa kër Huut ne leen itam waa kër Samuut waa kër euh, Saalix amoon nanu ko mu di giir Samuut boot gisee nag ñu tuddee leen ngir giir Samuut dañ ne cosaanu tur wi moo di ne seen ndox dafa néewoon ndax athamat huwa almaul qalil modi di ndox mu new ñu gir samut moy gir gi nga xamne sen seen bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih saalix ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila saami ibnu nuux alayhi salaam ñu ne saalix mi soo toppee askanam مونغي دايتالو ci yonent yalla nuh نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لي نتودي dañ leen a tuddee seen maam ba gën mag waaw